moo suñu troisième édition ñu koy def ñëw di ko terminer si à Diourbel suñu fief suñu terroir fi ñu dëkk donc tey euh, bu ñu ñëwaatee fii rek da ngay xam ne carrément ñaan bi mot na comme ni ko imam bi doon waxee euh, sama kàddu nag du ci sori amaana du remercier ñi nga xam ne dugal nañ ci seen loxo boobu ba léegi euh, et premièrement damay njëkkee ci association bi waaw à tous les membres de l' association bàyyiwuma kenn parce que métti woon na Dakar ñii di bàyyi seen jàng di ñëw di ñu rejoindre ñii di bàyyi seen liggéey di ñëw di ñu rejoindre ñii sax bàyyi seen activité di ñëw di rejoindre cause bi donc tey jii amuñ seen fay man dey en tant que président vraiment kontaan naa ci yéen ñëpp euh, certes ànd yombul rawatina 30 jours ñu ànd yenn saay neer yi jóg yen saay xol yi tàng yenn saay xel yi tàng mais à chaque fois lu ci mënti am rek gérer nañ ko suñ biir donc kontaan naa ci yéen ñëpp ñëpp macha allah di ñaan aussi ni ki nii déwén wax dëgg fa yàlla képp lu waay mënoon rek nga mën lu ko ëpp et dëwoon bu ñuy ñëwaat aussi vraiment ñëwaatee ci beneen forme waaw donc je parle avec le cœur vraiment parce que je assez content et assez ému aussi donc vraiment bi ma egsee aussi Diourbel gis naa ne maanaam comme li ñuy wax rek du lépp ñun yoruñu ko xëy na lu ci bëri nag yàlla dafa am nu mu koy doxalee yàlla dafa am fu mu koy jaaralee euh, organisation bi lu ci bëri dafay jaar ci sama loxo mais newul man maa ko yor parce que bi ma ñëwee Diourbel gis ngeen tey nekk moon fi mais bi ma ñëwee gis naa fi la nga xam ne dal na sama xel tey jii bu ma demoon ba nekkatuma ci association bi aussi daf may leer ne dina am continuité te mi ngi ci ay loxo yu wóor na loxo yu wóor aussi donc je suis content vraiment yéen ñëpp nag ni ki dëwoon xam nga euh, ñi ñi war a takk nag takk aussi xam nga ñi war a sëy sëy xam nga euh, xew li daal gën a yaatu gaa yi gën a am promotion comme ni ma ko Ismaïla Fall doon waxee biñ fi ñu bëri am nañ fi ay promotion donc na gën a yaatu yàlla na gën a yaatu et que et comme li may wax aussi waaw bi est ouvert Biddew Events tëjuwut Biddew Events sa amul problème xëy na dafa am lu ñu bañ rek mais képp ku gis sa bopp ci mbir mi mën nga ñëw rejoindre waaw donc ñun on la là pour le en fait pour le développement euh, de Diourbel bu weesoo li comme ni ko Pape Farid Seye waxee am na activité yu bëri yu ñuy def œuvré nañ fi récemment pour l'association des handicapés jóge nañ fa dem ci prison ba dem nañ fi ci prison yi ak feneen ak feneen donc yaakaar naa ne njëriñ loolu rek lañ lañ mën di def Diourbel di ci sant te di ci kontaan. parce que nit ki nga am dara delloo ko sa dëkk donc pour man satisfaction boobu dara mënu koo gën a rëy euh, donc alhamdulilah kontaan nañ et que message bi may mujjee la lancé rek mooy lii moom moo nekkoon début activité bi tey ci journée bi mais bu ñu noppee fii am na distribution aussi de kit alimentaire bu ñu war a def euh, ci yenn famille yi ak yenn waaw yaakaar naa yenn gox-goxaat yi loolu aussi œuvre bi de la ba nga xam ne xëy dinañ koy def euh, derrière les caméras que comme li ñuy wax rek. Euh, ñun yàgg nañ di def ay activités ya nga xam ne sax kenn yëgut kenn gisut mais tamit dafa bokk ci ne lu baax boo koy def tamit am na fooy toll mun nga ko fësal parce que mën na influence ñu bëri nit mën na toll fële xolam di metti mais mu gis affaire bi mu influencé ko positivement donc kon lii lu ñu laajoon ñu fësal la ko te biñ ko fësalee aussi gis nañ ci ndam léegi kon derrière les caméras comme ni ma ko waxee ci kanam bu ñu fii dañuy enchaîner ci distribution kit alimentaire yi dem ci yenn famille aussi vraiment ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy gunge fii ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier remercier waat aussi euh, tous les partenaires yi nga xam ne jàpp nañ ci biñ ko commencé euh, Dakar ba fii nii